attaqué dafa bëri ay attaque ay agression ay cambriolage ci boutique yeeg station yi ci loolu nag dañu am ay renfort yu jógee dakaar mooy directeur de la police judiciaire ak waa yi ñoo ñëw pour prêter ñu main forte ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti nit la ñu interpellé la ñu jàpp téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar pour vérification d'identité la juróom yi pour yor sineebar euh, ñaar fukk ak ñett vingt-trois ñaar fukk ñett yi mooy ñi màndi di tëdd ci mbedd yi di tërëf ci mbedd yi juróom-ñett yi pour vagabondage ñeent pour ñi nga xam ne dañuy quinze ñett pour ñiy dawal oto te yoruñu permis de conduire benn pour sàcc juróom-ñett pour jeu de hasard maanaam ñiy carte xaalis ci mbedd bi juróom benn pour nécessité d'enquête ña nga xam ne seen i seen i euh, comportement moo moo suspect donc ñu war a saytu nag seen i yëf ci mbiru contrôle oto yi ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti pièces la ñu jàpp ñu immobiliser juróom fukk ak juróom-ñeenti oto ak fukk ak juróom-benn moto loolu moo nekkoon liggéey bi. maa bi liggéey bi nag dafay continuer li ci am solo mooy day continuer dans le temps. du yem ci démb ak bërki démb rek parce que renforts yi ñu ngi fi ak ñun chaque jour dañ koy dañ ciy nekk guddi ak bëccëg pour sécurité am ci dëkk bi diggante Touba ak Mbacké ak li ko wër.